ñoo ngi troisième ñoo ngi koy réunir évidemment mooy cerise sur le gâteau fi ma doon bëgg a mujjee mooy ñu njort ni mhm. acte yi ngay posé mu ngi jëm ci nga forcé ñu troisième mandat mhm. loolu itam gis nañ ko fi moo tax sànq bi ma lay wax mhm. ba nga naan ma yaa ngi tiital sénégalais yi c'était pas anodin dama gis ay ay faisceau ay indice yuy yuy commencé di di di dajaloo mën na mën na mën na njort ne yoo xam ne réew yooyu na am ci réew mi ñaanuñu ñaanuñu mu am fi évidemment mais doo doo yem ci ñaan ñun li ñuy li ñu war a taxaw muy suñu taxawaay ñun gëm nañu ni ñaar ñooy ñooy piliers yi nga xam ne ñooy régler problème yu mel noonu ci réew benn bi mooy askan wi lott ci mënul armée bi ñëw mais man dama optimiste ci ni askanu Sénégal du ci lott te dina ko régler moo tax ma ni la suñu armée loolu na toog fa muy toog askanu Sénégal dana ko régler te te te duñu soxla yegg ci yu demee noonu parce que détermination la laaj taxawaay la laaj mobilisation la laaj et gis nga troisième mandat bi mm-hmm. bis bu ndemoon ba teg loo xam ni askan parce que bu may wax ñun ay leader politique lañu. Mm-hmm. mais sénégalais yi toog ci kër yi. Mm-hmm. te seen seen jom seen ngor. seen xalaat. du leen may mukk ñu nangu buumu njaam. wala euh, ñu noot leen. te nootaange bi ñu bëri ci ñoom ñu ngi jàpp ni. kii ñu fasanteeloon kóllëre mu di président ñu fal ko. mu prêter serment 2012. ñu falaat ko 2019 mu prêter waat serment muy ñaar. bis bu ñëwee ba ñu bàyyi ko ñàkk fayda ba mu imposer ñu boppam ci lu ñu neexul. ñun sénégalais yi du ñu gor bëgg nañuy ref bëri nañuy réfléchir noonu. d'accord te ñooñu. ñaata lañu ak ñaata million ak ñaata yi nangu bis bu ñu ca yeggee ñu génn taxaw ak moom ne lii du fi am. loolu bu ca yeggee dina xam ne mënul def face à un peuple déterminé xam nga exemple bi mu war a xam. Mhm. ma daaneel foofu. waaw ñoom dañu jàpp ni boo amee ngànnaay yu bëri am say gendarmerie yuy réprimer nit ñi lacrymogène yi du jeex da ngay dégg sax mu naan li amoon dootul am dem naa wuti ngànnaay yu dul jeex. Mhm. moom sax la wone ci défilé bi. Mhm. mais. Euh, ben Ali Ben Ali Ben Ali bu Tunisie mhm. benn Ali Zine El Abidine Ben Ali régime policier la yoroon lu ko ëppoon ngànnaay lu Sénégal am fi mu ne nii rek Ben Ali amoon na ko lu ëpp fukk ci ngànnaay ak régime boo xam ne lii c'est un régime policier. dara kenn du sa bi askan wi demee ba génn ba doyal benn lay tegu ci ñaari fan dafa daw génn réew mi parce que amul benn ci histoire boo ko jëlee benn dictateur wala tyran ak lu mu mën a mel. ak lu mu foor foor bëri bëri ay ngànnaay bu askan déterminé génn taxaw ne ko lii nga bëgg a def nanguwuñu ko kooku am ci ndam toujours ñoom ñooy mujj a dellu ginnaaw wala lu la cee jëlee du la neex. loolu nag la ñu koy ñaanal moom. Mm-hmm. ak di ko ko ñaan parce que bu ko yeggee fenn fi dina yàq lu bëri ci Sénégal te moom itam. dina indi loraange ci moom te kenn yéenewu ko gis nga man. pourtant dama koy wax mais mooy jël mooy jël pouvoir bi. xam nga sax bu ñu demee ba ah. tey Sénégal ñu naan ay armée naan dina jël ak du jël. man du sax ah. du sax débat non xam nga xam tout le temps on dit des choses. mais mais du sax débat boo xam ne tey waroon nañ toog fii ci Sénégal ñu naan ay armée war a jël pouvoir wala yooyu mais xam nga régime dafay am bu yàlla terrain je précise man bëgguma Sénégal dem ba am rupture constitutionnelle wala démocratie bi am lu ko yàq. gëm naa ni dina gis en face de lui un peuple déterminé bu tax mu ni bu ma ko bëggoon itam mënul nekk bàyyi naa ko pour au moins sauver la face man gëm naa ni dina am bon sens même à la dernière minute parce que force bi mu gis ci kanamam ñu ko koy tegal mhm. dina xam ne du mën a jàll bu defee loolu mhm. alhamdulilah mais même bu fekkonte ni loolu demeewul noonu mhm. gis nga constitution dafa prévoir scénario yëpp te man constitution bi laa gëm bu ñu demoon ba ni président bii askan wi taxaw na ba moom mënatul gouverner réew mi bu doon wàcc itam ak nu mu mën a wàccee constitution bi mooy continuer Sénégal dafa ni bu demee ba président am empêchement mënul continuer président de l' assemblée nationale moom mooy prêter serment yor réew mi. ci àpp bu ñu ko àppal bu ko defee mu def ay ay élection dégg nga loolu man du du loo xam ni kenn ñaan na ko kenn ñaanu ko musiba la kenn ñaanu ko musiba la te yéene wuñ ko ko moom hmm. yéene wuñ ko Sénégal surtout parce que réew mi hmm. wax dëgg yàlla yeggaguñu foo xam ne fii dañuy dañuy rompre li nga xam ne moo doon moo doon référence wu ëpp nañu ñun Sénégal. Mm-hmm. mais Afrique man ay xarit yu may woowee Cameroun fii ba Tanzanie Kenya bu yàggul. Mm-hmm. ñu naan lan moo xew ci seen ci ci seen réew mi yéen dañu leen jàppoon comme ñoo xam ne presque yemu leen ak ñun africains yi yéen ñu doon jox espoir ni Afrique lu mu metti metti mën naa baax parce que am na réew yoo xam ne du ñu sombre jamais ci lu dul démocratie. Mm-hmm. lii xew. tax ba ñoom ñuy am jiixi jaaxa loolu nag ñun war nañu dellu waat jël suñu place. d'accord te Macky Sall nag lu ci bari ci loxoom la nekk. bu dul lépp d'accord d'accord alors euh, Ousmane Sonko euh, ci situation yi ngay naqaru yëpp taxoon na mu bind. ab ay bataaxal ñi nga xam te ne ay institution internationale lañ euh, par rapport situation réew Sénégal yan retour ngeen ci am waaw bari na xam nga xam nga depuis deux mille vingt et un ci événement yi ba tey hmm. à tout moment ñu ngi garder contact ak institution yépp hmm. boo gisee sax Euh, rapport yu bari génn temps yi xam nga rapport département d'état américain bi sénégalais yëpp gis nañ ko mu ngi ci seen site département d'état boo ci duggee gis ko mhm. mais rapport boobu boo ko liiree da nga naan réew mi ñuy wax est Sénégal la li ñu ci bind ci ay violation de liberté mhm. ak dellu ginnaaw bu Sénégal dellu ginnaaw ci droits humains mhm. da yéemu sax te ay américains yee ko bind parce que ñoom seen ambassade la ñu am fii am ay renseignement ci biir réew mi di lire journaux yi di gis li xew xam nañu li am Sénégal ñu def ci rapport te ñoom itam saisiroon nañ leen wax leen li fi xew lépp Union européenne jox nañ leen mémorandum bu yàggul saisir nañ leen wax nañu leen Nations Unies commission bi nga xam ne mooy gérer affaire droit de l'homme am na benn rapporteur boo xam ne mooy toppatoo affaire euh, manifestation pacifique ñii ay affaire détention arbitraire ñoom ñépp saisir nañ leen te boo gisee seen rapport bind nañu sax ministre des affaires étrangères bu Sénégal di ko poser ay questions ne ko yéen Sénégal lii ak lii ak lii la ñu observé ban tontu ngeen ci am ministère des affaires étrangères génn tontu leen rek ay waxu picc yoo xam ne naan non réew mi démocratie la suñu constitution nee na nangam te constitution boobu ñoom ñoo ko violé dégg nga Amnesty International bépp violence bu am nga gis ko ci ay manifestation uh-huh. wala Human Rights Watch uh-huh. xale yi vidéo yi ñu jël ak ak film yeeg arrestation yeeg répression bi lépp dañ koy def ay dossiers yónnee leen mais mais parce que dañu bëggul ngay mbubboo démocratie uh-huh. fekk tyran nga Sénégal moo dul nangu loolu. moo tira boobu nga utiliser waaw moom la avocat Ousmane Sonko bi bu woon ca ca Europe njëw. moo am euh, daal di koy daal di koy taqaleeg Macky Sall. xam nga ba ñu waral ñu dàq ko loolu aussi. xam nga xam nga respecter institution bu mel ne le président Macky Sall. wala le président la xam nga xam nga nooy caractériser euh, ku dul démocrate. Mhm. ay boo nee du démocrate mooy rek nga ni tyran la mooy mooy ki nga xam ne volonté am rek la bëgg di muy dox bëgg-bëggam dem ba ni loi bi. presque mooy moom ni ma ko bëggee lay doxee mais ñun loolu la ñu observé ci biir réew mi man ku ma xam xam nga ni ku respecté institution la républicain la jusque là ci ongle yi mais boo gisee ni lii lay doxee. Mhm. bu ñu nee état de droit mooy état buy doxee nangam nii la war a mel. mu demee ba nekkatul état de droit day nekk lu tyrannique ñaar yooyu rek moo fi nekk soit ngay dox ci yoon nga tënku ci te bu ñu nee tënku ci yoon président ci la bokk institution yi ci lañ bokk askan wi bokk ci. d'accord mais boo demee ba yoon boobu ñoom tënkootuñ ci. Mm. seen volonté ak seen ay intérêt politique la ñu jiital. Mm. tyran mooy def noonu. moo naan lii laa bëgg. Mm. lii mooy am bu ñu ko nee yoon mayewu ko mu ne changé leen yoon. <laughs> parce damay def li ma bëgg. mais loolu sotti. dégg nañ aussi ay weewu bay que ne le président Emmanuel Macron dafa conseillé le président Macky Sall mu bañ a xëccu li nga xam te ni troisième la ak noo ko jàngatee. waaw man euh, xëy na xëy ci xibaar boobu xaw ma ci xaw ma ci dara parce que la ñuy waxante seen biir man man xaw ma ko te itam. Hmm. jàpp ma ni euh, Emmanuel Macron euh, moom war naa xaar ba Emmanuel Macron di ko di ko. di ko conseiller lu mel noonu. waaye Macron itam bu fekkee seqoon nañu ko ñoom ba mu bëgg ko ko wax loolu seen mbiru bopp la parce que ak lu ko Macron mën a wax. Hmm. jàpp ma ni loolu luy am njeexital wala luy am intérêt la pour ñun la peuple sénégalais bu àddina bi yëpp taxawoon ni ko bàyyil wala ñu taxawoon soutenir ko. jàpp ma ni dina am benn intérêt ñun nag dinañu wut ay alliés maanaam ñu jox information ñi nga xam ni parce que seen i télé ngi feeg yooyu ñu yóbbul seen réew waaye li nga xam ni mooy li am solo du lu Macron Macron wax euh, président Macky Sall mooy ñun sénégalais yi lii ñu taxaw jàkkaarloog moom ni ko li nga bëgg a def du ñu ko nangu te bu la adduna bi yëpp jàppale woon itam du tax ñu may la nga def ko c'est aussi simple que ça. parce que question troisième mandat bi. lu ñu mayul kenn ay le dernier mooy wàdd ci boppam moom mu àndoon ak ñun. Mm-hmm. ñuy xeex loolu deux mille deux mille onze deux mille douze sorewul. Mm-hmm. man dama nekkoon bi du secrétariat di M23. moom mi xam na si dara. d'accord ba ñuy dem këram juste après deuxième tour bi bi mu jàllee deuxième tour la ñu waxante woon xam na ko. d'accord yeneen ya fa xew xam nañ ko donc bu ñu ñëwee tey ñoom ñuy laam-laamee naan ay deuxième quinquennat laag ay nangami mandat dañuy moo tax man débat wu juridique bi sax bëgguma ci dugg. parce que nee naa leen lu nit ñàkk ñàkk xel. xam na ni 2012 président dafa yëkkati loxoom une première fois ni jure dugg ci benn mandat. dafa yëg saa yu président waatee mu ngi dugg ci mandat ndax juróomi at la wala juróom-ñaar wala ñaar wala ñett. ça ne m'intéresse pas. mais Ousmane Sonko ak ak ak kii li ngay wax ni ñoom ak Barthélémy Diaz li ngay wax ni naan ay mandat ak du mandat ñoom ay jamono fii ni lañ génn défendre que président Macky Sall bu ñu génnee bu ñu bu ñu rëccee bu ñu rëccee ba jàll ci mbir yi nekkoon. Euh, day day mën a nekk candidat ci élection 2024. xam nga xam nga boo leen woowee laaj leen. Mhm. lu tax ñu wax ko. du ñàkk dina fu ñu ko teg. waa je me souviens man ci sama bopp. Mhm. mës naa bind ça doit être quelque part ci sama page Facebook parce que yàgg na. Mhm. ma bind nii. bu con bu demee Macky Sall mii bu demee conseil constitutionnel. Mhm. yóbbu fa loi bii conseil constitutionnel bi ma xam. Mhm. ni ma leen gisee. da koy valider da koy valider. xëy na ñoom foofu la ñu waxee parce que dama leen ni. day def mhm. raisonnement bu simple bu bëggee bu bëggee bluffer. danaan bu ñu nee la durée du mandat du président est de cinq ans. nul ne peut exercer plus de deux mandats dañ naan su fekkee la durée du mandat c' est de cinq ans lépp du dul cinq ans rek duñ ko jàppee mandat. Mhm. donc dañ naan sept bi comme du cinq ans. Mhm. duñ ko jàppee mandat bokk ci nangam nangam. man wax naa ko. mais dama ni loolu ay ay mbiru judiciaire la moo tax dama la ni man dugguma ci juridique. moral ngay dugg wala. politique. Ah, accord. dafa am moral boobu nga wax. Mhm. mooy constitution ak askan wi. mooy la dimension étique askan wi Sénégal moo tëgg constitution am ni président nii la war a mel lii la war a def ñàngami mandat loolu mooy étique mooy li sénégalais bi bëgg ni man nii laa bëgg a mel nii laa bëgg a doxee lii mooy samay valeur samay valeur démocratique mm-hmm. loolu nag bu ko Sénégal defee ba pare day tànn ay nit ni leen doxal leen ma ko ñooñu nag mooy politique mooy le niveau politique moom Macky Sall ñu def ko président ni ko doxalal ñu constitution esprit bi ñu jox constitution mm-hmm. mu bëgg ko fa bàyyi salfaañe ko te moom en 2016 bi muy def référendum moo wër àddina bi yëpp ni leen esprit bi mooy mandat yi bare na dañ koy wàññi. d'accord ku waroon wàññi nag gis nga boo jógee ci loolu nag mu dem ci technique technique bi mooy ki mel ni ministre de la justice am. moom moo ko woo ni ko bindal ma constitution. kooku bindal ko xam naa daf ko naan président nan nga ko bëggee. ministre bi ne ko hmm. daw nga may defal ni nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs maanaam. Hmm. man mii Macky 2012 2019 am naa benn. 2019 2024 dinaa am ñaar. du ma mën a am ñett bindal ma ko waa ji bindal ko ko loolu mooy. technique bi mooy logistique rek nu ñuy bindee. ay loi mhm. ñooñu def loolu ba noppi. Mhm. tey mbir mi neex wala ñu jaaxle wala ñu tiit wala ñu seen ëllëg am na daal xaw ma ban raison moo leen habité ñu bëgg génn ci loolu ba set. foog ni nag sénégalais yi danañ ko nangu kooku dañu nax seen bopp. jërëjëf ils perdent leur temps jërëjëf docteur Cheikh gu mag a mag. doon bokk ak yow jotaay bëggoon naa ñëw ci ak inculpation Donald Trump. incha beneen yoon ci beneen yoon beneen yoon waaw waaw du waaw yoon du di di rafetlu rek euh, yaakaar naa bi ñuy mujjee jàkkaarloo ci émission booba euh, am na bu ngeen doon def fële ci temps aussi ses bi. waaw waaw euh, ma woon ko bu baax bi itam ma am mbégte ci ñëw fii seen plateau bu bu yànj bi di leen féliciter ci ci ni ngeen ko doxalee di rafetlu itam vraiment waxtaan bi ak yow mm-hmm. parce que c'est c'est brillant di ñaanal askanu Sénégal yëpp parce que on a un grand peuple mm-hmm. euh, yàlla bàyyiwuñu mm-hmm. te gëm naa ni yàlla duñu bàyyi ndax euh, defal nañu xel bokk nañu ci Afrique wala ci àddina bi sax ñoo xam ni yàlla bokk na ci ñu may vraiment xel bokk ci ñu bëgg lu baax te nag dañuy wax ni lu jiwu wa jeexul rek jógu fa ah, donc man gëm naa ni les valeurs son encore la mhm. le peuple va être résilient te Sénégal dina taxaw te dina jëm kanam te Sénégal bi ñu bëgg te nga xam ne moo tax ñuy yëngul di xeex incha allah Euh, dinañ ko mën a tabaxal fii ci biir réew mi. jërëjëf docteur Cheikh Tidiane Dieye nekk euh, njiital plateforme boobu ñu duppee avenir Sénégal bi ñu bëgg mais également mu ngi bokk ci kuréel boobu nga xam te moom la ñu duppee yeewi askan wi nekk nga xam aussi xam-xam na lool ci lépp loo xam jëm na ci wàllum euh, actualité wala tolluwaayu sous région beeg inter ak actualité internationale di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di également ñi nga xam te ni ñoo jàppoon ci combat bi comme ni ko gars yi di waxee ba tey jii ma mën a yanj mu di waa groupe salaam nekk foofee ca face stade amitié euh, donc foofu la ñu nekk képp koo xam te ne rek bëgg nga ci lu rafet li nga xam te ni loolu laa sol dafa rawatina korité bi ñu dëgmal ak euh, fête yi mën ngaa gaaw daw bu baax a baax dem foofee nga xam te ni moom moo nekk ca waa groupe euh, Salam da nga fa fekk nga xam ne moom moo nekk Mamor da fa fekk tamit ki nga xam